acca sama gay sen seen bii di Mbawos Foot ñoo ngi ñaan koy gën ci pass bi nga abonné rage yo ko ñu doole gay doomu Sénégal bi ak italy bi di Serigne ma ci bi ngeen xamanteni ni Benfica do nako ko amal debu mom Serigne dour mi ci 90 minutes di dugaloon non ko te biñ ko dugalee wané na bopam wané na bopam kon boy bi ni dafa jot ali Cissé bàyyi ko xel ñun wa Sénégal ñu gën ko ragné gën ka bàyyi xel parce que boy bi talent la té talent la mom Serigne dour mi mën naa ni bii mooy troisième match bo xamanteni ni ci équipe A Benfica bi mi ngi doon toog si banc bi actuellement nag démb moom Serigne Doum mii ci deuxième bi temps bi duguna bi match bi desee ay quelques minutes ci lan ko dugal mom Serigne Dour kon boy bi li day yok li day firndel ni boy bi niveau am day gën di parce que ci équipe B Benfica bi fa la nekkoon difa def ay match yu baaxa baaxa baax difa def ay nganday match ba wa Benfica ñepp rañé ko ci lan ko mujj yéegal ci équipe A bi man naa ni nag amagul temps de jeu ci équipe A bi te ben match dong lan ko joué loogun muy match démb bi te ci dernière minute la dugg kon boy bi dafa jot Aliou Cissé bayiko xel convoque ko si équipe A bi wala ñu convoqué ko si équipe B parce que booy bi buñ seetaanee rek italien yi dinañ ko jël dinañ ko jël te man naa ni pour mu ñëw ci équipe nationale Sénégal bi liggéey bu rëy la xaar liggéey bu rëy a rëy rëy rëy rëy ci moom lay laaj quoi parce que booy bi talent la de talent la te buñ xoolee ba mu dem Italie dinañ ko réccu booy bi nii avenir la buñ ko woowee ci équipe bi boole ko ñoom Iliman Ndiaye ñoom Sadio Mané bu boobaa équipe bi day gën a suudewu day gën a baax ñu parce que genre booy yi dañoo am avenir te boo leen amee sax équipe bi bu boobaa dina baax trop dina la mën a jàppale dina mën dina la mën a porté loo xamante ni nii kenn defagu ko fii kon Serigne Ndour li ni ñaan Aliou Cissé mu gaaw convoqué ko wala mu koy bàyyi xel parce que booy bi démb match bi nga xamante ni Benfica amaloon na ko mën naa ne ci réseaux sociaux yi photo bi fépp foo dugg moom ngay gis Serigne Ndour Serigne Ndour doomu Sénégal bi ak Italie bi kon booy bi dafa jot ñu woo si équipe bi dafa jot ñu bàyyi ko xel dafa jot ñu waxoon ni ko booy ñëw représenté Sénégal gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partager